merci beaucoup xam naa wax ci li ñu ci yokk du bari bi ci njëkk rek ñu koy xamal askan wi mooy la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de maintenir ces manifestations la coalition a décidé d'exercer ce droit constitutionnel parce que manifester suñu constitution moo ñu ko may résister suñu constitution moo ñu ko may dans une régime dans un régime démocratique wax naa sànq ni c'est l'interdiction qui devait être l'exception et l'autorisation la règle mais dañu nekk ci jamono boo xam ne nag c'est le contraire mm-hmm. et comme dit un grand penseur face à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir et à la jeunesse sénégalaise je reprends li suma camarade Babacar wax sànq à chaque génération sa mission à elle de la remplir ou de la trahir e la jeunesse de Yewwi Askan tout comme la majorité de la jeunesse sénégalaise a décidé d'assumer sa responsabilité mm-hmm. cette jeunesse n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 58 n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 62 la jeunesse de 88 de et la jeunesse de 2011 il est temps de prendre notre destin en main à certains moralisateurs qui disent que dañuy utiliser ndaw ñi cette jeunesse génnul pour Ousmane Sonko génnul parce que Khalifa moo ko neex génnul parce que Déthié moo ko woo mais c'est une jeunesse qui se soucie de son avenir. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise. C'est une jeunesse qui a décidé de sa battre pour la postériorité. donc moralisateur yooyu du ñu gëm la dañu xam ne ñu fi toog kenn ku ne da nga gëm ni Sénégal ëllëg ñun ñoo koy defar te président Macky Sall damay wax ni su doon Abdoulaye Wade dafa utiliser les mêmes méthodes du doon président en 2012 c'est parce que Abdoulaye Wade a été un démocrate c'est parce que Abdou Diouf laa été Senghor Sénégal am ay alternance te mësuma gis ci ñoom koo xam ni élection day jot ngay tànn mbër yi nga war a bëreel bu dee ñeme na dama koy rappeler le président Abdou Diouf waxoon en 92 mooy jàkka jaa ngi ku mën nodd noddal en 2024 foofu la jëm et foofu la yeewi askan wi di woo sénégalais injustice bi am na ku ko wax sànq ku gis démb ñu takkal ay nit bracelet yi suñu xel day dem ci Kunta Kinte du ñu nangu ku ñu delloo ci buumu jaam gi waa damay laaj ndax bracelet électrique yi c'est simplement pour les militants de PASTEF et de la coalition Yewwi Askan Wi est-ce que xam ngeen benn sénégalais bu ñu takkalagul bracelet yi avant ñetti fan yi justice nag li koy symboliser mooy balance yu tolloo su demee ba jàng anarchie lay indi parce que kenn ku ne dafay fajal boppam moo waral ñuy profité di rappeler à ce petit ministre de la jeunesse que la jeunesse sénégalaise elle est déterminée gàcce la sax mu toog ci télé yi di ndamoo soixante dix mille emploi ci population boo xam ne plus de soixante douze pour cent jeunes la soo jëlee une population de huit à dix millions ngay ndamoo ni soixante dix mille sénégalais jeunes wutal nañu emploi gàcce la échec mënul weesu loolu moom nag il n'excelle que dans l'arrogance mais ñu koy xamal lañu ko waxoon keroog bu dee fit wi muy woowee am na ko ak ndaw yooyu muy woo fële ñuy cirque mm-hmm. ñu ngi leen di xaar ci terrain bi mm-hmm. parce que ndaw yi toog fii du ñu ñuy jox cent franc mm-hmm. du ñu ñuy mobiliser bu leen neexee nañu continuer di daggal ay ndaw cent cinquante mille par mois pour ñu jàkkaarloog ndawi askan wi s'ils pensent que nous ne sommes pas au courant yëg nañu ko nañu continuer di jël ay mbër di recruter ay nervi heureusement que cette jeunesse de Yewwi Askan kenn fayu ko te à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir la loi sénégalaise dafa am ñu mu conféré ñu faire maintenir l'ordre c'est nos forces de défense et de sécurité képp ku ci dugg te bokkoo ci loo ñu def daañu la ko delloo parce que foofu la réew mi toll donc à ce ministre de la jeunesse ce qu'il devait faire c'est de se taire parce qu'il a échoué dañu koy xaar ci sur des question de l'emploi dañu koy xaar sur l'éclairage de beaucoup de choses tey il nous parle des domaines agricole communautaires ñaata dak moo fonctionné tey les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté bu Pikine ba ñu tegee pose première pierre ba léegi ciment dolli wuta foofu la ñuy xaar le ministre de la jeunesse pas dans l'arrogance mais s'ils pensent qu'ils peuvent continuer à utiliser la violence contre cette jeunesse nous sommes déterminés à y laisser nos vies parce que le Sénégal vaut plus que ces sacrifices là loolu mooy li ñuy xamal président Macky Sall di manifester suñu solidarité à tous les détenus particulièrement à notre frère Babacar Ndiaye bokk ci coordination des jeunes de Yewwi Askan Wi nekk vice président jeunesse patriotique conférence de presse mujj fii la toog ñun tey nekk fi kan moo wóor ci ñun ñii conférence de presse bii ñëw dinga toogaat ci table bi parce que chacun d'entre nous buy xëy dafay préparé wu ni mën nañ laa yóbbu parce que réew mi nag ni ko maam Cheikh doona xaw ma lu fi am waaye du justice jaay doole moo fi am mais su mag président Macky xalaatee ni des dictateurs beaucoup de dictateurs connus dans ce des fins tragiques yéenewuñu ko lool ñun li ñu koy yéene mooy un président de la république bu respecté kàddoom def ñaari mandam dem représenter du Sénégal ailleurs toutes ces personnes qui le poussent à aller vers un second mandat une troisième candidature c'est des gens qui à la minute de sa chute vont le quitter comptez ce qui était autour de Abdoulaye Wade ñan ñoo des tey au PDS tout ce qui portait ce combat là ñu ci ëpp tey ñu ngi fële Serigne Abdou nag dafa doon wax ni gor buum du ko yeew doom moo koy yeew donc ñuy rappeler à la jeunesse sénégalaise d'être à l'écoute de la coalition Yewwi Askan Wi ils ne sont pas parce que dañu bëgg Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Malick Gakou mais parce que dañu partager avec ces leaders les valeurs d'un Sénégal meilleur ces leaders la bu ñu leen rendre hommage ñu leen tegal dara ñuy manifester aussi suñu solidarité au président Ousmane Sonko parce que li ñu ko teg képp ku waxul jaay doole rek naa fekk nga parce que dit ñu tegle jaay doole gi yóbbu ko këram def état de siège boo xam ne kenn si ñun gisul justice décidé ko un procureur de la république bu toog di dugg ci dossier médical wax diw lan moo ko yóbbu hôpital waaye ñaata sénégalais ñoo fi xëy di dem hôpital di faju ji te kenn déggul ñu wax seen dossier waa tey moom en tant que Ousmane Sonko est-ce que amul droit dem faju ji leader Yewwi Askan Wi amuñu droit séq ak benn sénégalais ñu gis barki démb préfet de Dakar jël ay nit dem fii ci VDN bi ciblé ay nit yàq seen bagage parce que dañu ànd ak Ousmane Sonko waa est-ce que ànd ak Ousmane Sonko délit la dans ce pays est-ce que bokk ci yeewi askan wi délit la ñuy rappeler au président Macky Sall de revenir à la raison moom moo ko waxoon je serai à mon second et dernier mandat parce que coow li yëpp nag li ko indi rek mooy en vue def troisième candidature en vue def troisième candidature moo indi coow yëpp dañu koy wax ni julli gi ñaari ràkka amul ñett amul ñeent na sëlmal nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs c'est assez clair et bu bëggee Sénégal et ni mu koy waxee ni la Sénégal au cœur te muy dëgg ci moom na libérer tous les détenus politiques yaay yu ñu jël takkal leen buumu jaam gi yóbbu leen ci kaso bi jeunes yi ñu jël empêcher leen ñu mën a continuer yóbbu leen ci kaso bi sénégalais yi nga xam ne ñu ngi leen di bokkuta bondu xataal parce que dañu bokk ci coalition Yewwi Askan ñu ngi exiger ñu bàyyi leen en tout cas jusqu'à leur libération la coalition Yewwi Askan Wi continuera d'exercer ce droit constitutionnel et ce droit c'est de dire non ce droit c'est de résister ce droit c'est de manifester ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay